di Seck feddali war na bëgg-bëggam ngir jiite réew mi loolu nag mu ngi ko xam ne ci benn séminaire boo xam ne partem bi di réew mi moo ko doon amal. donc voilà la feuille de route en attendant les annonces. ak lu mënti am ak lu mënti doon fi ma nekkoon juguma fa ba léegi yéena ba ma amoon ci réew mi moom laa am ba léegi moo xam démb ba ma nekkee ci soppi moo xam tey ci parti bi di réew mi projet politique bi ma daan doxal démb moom laa nekk di doxal tey te fas yéenewu ma ci jóge benn yoon te itam duma ci masa tàyyi dont les piliers demeurent constants. loolu moo tax ki nga xam ni moo di njiital réew mi taxaw ngir defaraat parti bi fas yéene ko tàmbali ci li nga xam ni moo di recensement yi. nañu dellu ci suñu recensement defar suñu parti recensement mooy ku ne moom responsable la na ma wax ñi mu boot ñan la ñi ko def responsable ñan la ak ñaata lañu. bu ñu paree ci loolu ah ñu woote kuréel gu nekk ñu ne ah fii kat ci tuuba walla fii ci euh, Mbuur nangami responsable yi ñoo fi ne. ci loolu a Seck taxawal ay kuréel yu bëri bokk na ci kuréel bi ñuy woowee conférence des élus yi nga xam ne ñoo ngi ci parti bi ay cadres yu bëri nag yu nekk ci parti bi teewe woon nañ boobule séminaire nga xam ne dafa bokk rek ci yoon bi nga xam ne waa réew mi bëgg nañ faa ngir jot ci réew mi ci atum 2024.